am na loo xam ne la hmm. ñoom ñoo koy liggéey hmm. tey du ma taxawoon ne leen carrément dama leen jox temps pour ñu bàyyi ma demit yaay day métti rek mais kenn mënu ko dindi parce que gerte googu hmm. te souvent population bi loolu la ñuy gën a bëgg a dégg sax que par rapport nga wax leen dëgg man nag li xam mooy dëgg mooy ñoom ay nit la ay doomu aadama lan dañuy calculer di xalaat te ni xalaate man noonu lay xalaate te foofu noonu ñu ma dugaloon noonu spécial boobu noonu ñu may wax noonu man damaa yàgg opposé wu ne leen fii du haute sécurité fii amul benn sé parce que fii benn détention bi sax moo ko ëpp sécurité. comprendre nga xam nga ñoom tamit seen liggéey la lu ko ñun ñun ñoo ne leen mooy lii wala mooy laa mais nag am na loo gis gis lu gis waxoon. man gëm arrivé sécurité foofu noonu parce que musu am sécurité. d'accord d'accord xel laa wax sama léegi nag infraction bi ma def nii defuma ko pour bañ a kaso defuma ko ngir ralataso defuma ko ngir affaire baan yi defuma ko ngir saboté administration bi daal si maa ñoom relation bu rafet la ñor mhm. gis nga sama ay di seen sama dossier mhm. dañ si doxo doxo doxo sax surtout la DAP DAP si boobu moom dafa bañ injustice mooy Boané mhm. dèjà injustice ñoom ñëpp bi ko constaté DAP ministre de la justice Malick Sall ko si affaire SG bi SGM bi madame Badiane ko si sama affaire woo na procureur général sama affaire woo na procureur de la République sama affaire woo na même doyen de juge sama affaire mais dafa am leneen lu nekk ci suuf loo xamante ci ni moo tax loolu yëpp muy def noonu mënul feeñ te aussi tamit moom it ab directeur la rek dañ ko dénk pigeon atte wóoluñ ko bàyyiloowuñ ko mhm. moom mu sañ a gis constaté li injustice am na fi mu signalé ko rek la man man comprendre naa ko bu baax a baax a baax léegi nag man dama choisir que ne lii ma def nii mhm. donte si côté euh, euh, du mën na ko bañ a arrangé si côté am mhm. mais man mooy li nga xam ne man mooy guerre bi ma choisir du parlement te alors que domaine bi ñuy parle ñoom déjà maîtrisé ko ki ñu waxal xamuñu ko kenn mënu la wax ne lii la yàlla may na ma tur nag parce que man bëri naa pexe lool mhm. bëri naa pexe lool yàlla dogal na depuis ma am euh, onze ans ba ni may waxee man foo ma fekk man wàllum technique ak wàllum informatique maintenance yooyu ci laa nekk. Hmm. ba pare def naa aventure bu bari tamit daanaka fu bari dem naa fa ci àdduna bi. Hmm. waaw yàlla tamit may na ma lool may na ma lool noonu. day nag maa ngi lancé pour Sénégal ñu ne hmm. ak autorité yëpp comme ni ma waxoon léegi dawuma kaso pour bañ kaso dawuma kaso bu dara kaso dawuma kaso bu dara man li may def nii pression bi ñu si wax ju bari man ooma ko xaw man lan lan laa gis. man hmm. dama ne guerre c'est la guerre te doomu aadama dafa war a guerre ba xëy dugg si biir bàmmeel man loolu laa gëm. jëf hmm. yi touché na ma métti na ma du ma sañoon du ma ko def duma ma sañoon damay nekk si loxo administration bi naan ñu seere sama mbir comme ni ñu ko war a seere ba bis jot ñu ne mag seeral nan la wala ñu kat lii la yoon def di wax si yow mu jeex ma jéem jaar nii mais du ma sañoon tey du ma dem ba sama bu waratu ba tëdd kaso ñuy continuer di ba ba tax tey lii ni mu demee mu demee ko. relation bi ma amoon administration bi tànk bi ma dootu ñëwaatee di évadé waat man dina ma touché lool mais damay xam ne du ñu am du mën ñi tamit koo def parce que gënalu ma du ma sañoon ma ko def waaye dama xam ne ñi ma ko seexal il faut que tamit nga indi ko man nag wóolu naa sama bopp ma Sénégal dem ba fenn maa ngi bii si dëkk bi toog léegi man dama leen laaj a défi dama leen leen bu fekkee ñoom li wax dëgg la yor nañ seen dossier gëm na li yoo xam ne seen preuve man maa ngi leen déglu saa bu ñu jëlee dossier yóbbu ko tribunal samay ay avocat saa buñ informé que ne dossier bi na tribunal dañ koy atte sur tel sur tel boobu du may wattima ma leen fay fekk man amu si may sax amu lu ma si kon yow daal évasion bi da nga ko ah, def pour ñu setal pour ñu pour ñu sëgg ci say mbir lijjanti mu jeex benn yoon nga xam foo féetee non pas pas sëgg si say mbir xam nga ñoom du la nee sëgg si yoon nga xam sëgg amuñu amuñu lu nekk Samba Sall bi mu ko commencé di di yàkkam man bi mu ñëwee indi ko benn papier dañoo respecté wu doon article cent cent un bi parce que yëpp koo xam ne dañ la accès criminel balaa ñu lay enquête sa affaire dafa toog ma ne ko loolu yëpp dossier bi àtte nañ mineur génn papier boobu la bloqué enquête bi enquête ñu ngi ko bloqué deux mille dix huit ba deux mille vingt janvier le vingt deux janvier deux mille dix huit ba ma ko nee papier bi mhm. la Samba Sall bloqué enquête bi janvier euh, deux mille dix huit euh, deux euh, de mille dix neuf deux mille vingt ba deux mille vingt et un la ñu doog laalaat dossier bi le vingt quatre le vingt deux février deux mille vingt quatre bi si la may doog a waat si dossier boobu. d'accord comprendre mhm. léegi nag ñoom dañ ne jotul doo ko joxe libre pourvoir day daw doo ko lay àtte du ñëwaat ligue la léegi man joxuñu ma libre pourvoir man maa man man sa woo man maa forcé ma libre pourvoir <laughs> léegi nag maa ngi maa ngi si biti maa ngi si bi ça n'est pas mhm. fi ma nekk du ma ko wax kenn mhm. déplacé du ma fenn bu li xam ne ay daw na dem na gaan nekk ligue kenn ku nekk di indi problème di di créer ay mbir léegi fenal Sénégal gi day toog mhm. di leen xel jour et nuit saa bu sama duñee demee naa lu ma woyee ba ñëw fekk leen tribunal wala leen man doonu ma kuy daw te amul